xam nga su fekkee ne góor ceeb bi dafa war a jar ay trois cent et cent vingt cinq mille de plus jëm kaw gouvernement bi am situation bu si def commerçant yi wàññi liñ ko waroon a jaayee par exemple ñoom liñ ko war a jaayee pour am si dara dañ koy dagg buñ ko daggee nag état bu leen joxee seen situation ne si la si loolee seen bénéfice nekk. waaw su fekkente ne ñoom dañuy dagg di jaay te état situation bi mu waroon a mu leen waroon a fay fayu leen ko mais bu yàggee ñoom dañuy dañuy dañuy taxaw loolu nag moo waral xam naa ni ak fin de année beeg fin de <laughs> régime yooyu ah kuy leble ba ki ngay waaj lebal di takk ay bagaasam il faut nga taxaw laaj ko laaj ko laaj ko li nga doon joxe ñi war na jaay ñoo jaayut ñoo téye seen loxo léegi nag ñi ko desee ñoo ñoom ko yokku waaw yaakaar naa ni bu gouvernement bi réglé problème infortateur yi jox leen situation bi mu leen ameel depuis un an yaakaar naa ni ceeb bi dina delluwaat fa mu jógee te yaakaar naa ni ñu ngi ciy wax.